askan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu def faxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilaay jàmm artiste kenn du ko jox àqam dañ koy bàyyi ba mu dee ñu sexal ko nàkkam loolee la rappeur ba waxoon di dadi bii waaye nag dee mën na ko yéene yi xëyee ko niki tey ginnaaw nag faatu Dudu Njaay Kumba Rose ñu ni le quotidien yéene kaay dellu ni ñu cool mbën mbëng ak ni nga xamante ni moo di ndeer wét nañu loolu tambour ba nag ma ne ko ñàkk na major ba waaye artiste bi mu mel ni loole la yëgoon ci xët mu njëkk yéene bi rax ci dolli dellu di wax ni Sénégal nag de képp koo xamante ni rek bàyyi na ko ba mu faatu mu di ko rendre hommage nag jéggalu ko du ko baal mayel bët yéene kaay bi enquête yéene kaay ni ca commet ni guy gu màgg gi daanu na waa ñu ne nag Doudou njaay Coumba Rose faatu na nag yéene bi ñu wax dee ma ne ko ci wàlluk ma ne ko hommage gi nga xamante ni moom lañ ko fas yéene daal di rendre mu ni nag waaye ma ne ko amu ci woonu ko yéene waaye nag ma ne ko seede yaa nga ca Youssou Ndour ni njiitu réew mi di Macky Sall de dakkal na vacances yi nga xamante ni moom la doon amal daal teew si file Youssou Ndour nag ma ngay dellu di ko boole ka nga xamante ni moo di Vieux Sagne Sagne ni ñaar ñu nga xamante ni nag de lépp lu jëm ci wàlluk aar amal nañ ca nag ma ne ko jaloore ju rëy waaye nag témoignage ya yamu ca rappeur bi le di ni seetaan nañ ko ba mu daal di faatu Vieux Diba Kumba Gawlo Seck mayel bët yéene kay enquête la soleil jant bi xëy ay bu duutu njaay kumba rose dootul ndaxte nag jant ba so tabbal askanuk artiste gi nag ci actis Sud Quotidien yéenekaay bi di ñu xamal nañu ñu dee moo ko yóbbu ba tax na ñu ni de galañ bu tukkee ca moom dootuñu ko dégg laas yéenekaay bi la de ma ne ko moomu lay daal di wéral waaye nag ma ne ko ñu desande ak moom mu daal ñu tabal ci leneen du nga xamante ni ñal na langu politique yi mu ni Umar Sarr nag i ñoñom tareet la ñu def nag arrêté ba fësee ne nañu daal di wéyal seen ma ne ko bataay bi le yamuñu ca de kari Wade ni ki tey nag lay xam ak PTM ak Cour suprême Zoom info desandek ma ne ko libéraux yi dellu di xam leen ni nag ku jég politique gi ni ki démb wax na xat ci ñoom ndaxte nag ñenn ci ñoom jot nañ leen a pamti pamte yamuñu ca nee nañ ajjuma nag yi nga xamante ni moom la ñu dëgmal lépp lu nga xamante ni mbir mi laaj nañ ko rek fas yéene nañ ko cee def grand place lañ ca waxtaane moo di lan Macky Sall njiitu réew mi son excellence li nga xamante ni nag moom lay rumbalaat ci suuf ñu ne lan la Macky Sall dina saka nuppi lu mu mënti doon yéene kaay bi jot na ni gouvernement bi danañ ci indi ak i coppite gouvernement bi sax da jox nañu nag ma ne ni nga xamante ni moom la nar a composé nee nañu dinañu amal ab gouvernement bu lu ñu ca yem de ay techno technocrate yu performant yu xarañ waaye nag ay politiciens yu nga xamante ni ñoom it de kenn demul ñu des direct info mel ni kuy tontu waaye samp laaj ni Macky Sall ak Mimi Touré la ñuy lijjanti moo di lan ndaxte nag daja ba ca ñoom faral nañ di ko gis jamono ji mu bari lool yéen bi xëy nag ni leen dàng fàng ci xët mu njëkk libération yéen kaay ñëw nag ci kaw kawteef ku nga xamante ni am na jëmati nag ci passeport diplomatique yu Sénégal yi mu ne nag ca France la mbir mi daal di amee ñu ne ñaari nag ma ne ko doomi réew mi nag teg nañ leen loxo was sport yéen bi la ñuy tabbi nag mu ànd ci 23 yi nee na jàllom bi ngi ci groupe bi yéenekaay bi ñëw ci Sadio Mané ak les Red Devils yéenekaay bi fësal ne soxla nañ ko lool suñu lamb yéenekaay ñu fësal ne ko ndar képp nag mu ànd ak ki nga xamante ni moo di Mouhamed Ndaw Tyson yéenekaay bi dellu ci moom defaatub jàngat jëm nag ci wàllu cumbukaay li mystique laaj ba nga xamante ni moom la samp moo di lan Tyson naka lañ ko daal di jàppee mystiquement yéenekaay bi dellu fësal ni am xar mu weex tàll benn melo la ñu suul géej yéen ñëpp jàmm li ñu war a wax bari rek de. lii di comp aslaf ci yéene kaay jaa ngeen jëf